ok eh, jërëjëf mbokk yi ñoo ngi fiiti tey ci Mauritanie ci eh, bis bi nga xam ne ñu ngi koy eh, wàccaayu Sarsara mu mel ni tey sëriñ bi woote woon tey fii njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall teew fi sëriñ Khalifa Fall moom am Amdi Fall Moodu Mbend Khalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan sa borom yàggal ko lool te wéral ko waaye ñu làngook sëriñ Moodu Mbend Badiane waaye ñu ànd ak ñu jëmm ci di wax ak yéen muy Baye Cheikh Ndaw bokku ci ñi nga xam ne tey ñoom lu fi sëriñ bi yabal muy xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall bis bi nag yitteel ko lool xam ngeen ne bi nga xamee ne mbokk yi dajaloon nañ fekk ko ba Touba euh, jébbal ko liggéey bi xamal ko liggéey bi it euh, waaye euh, waroon naa gën a gën a mën a sax yaatoon nii waaye nag sëriñ bi waxtu wu nekk mu ngi ci ndigali sëriñ bi xam ngeen ne Touba googu ay ndigal rek lañ fa bàyyi waaye sëriñ bi fonk gim fonk liggéey bi ak fonk gim fonk murid yi nekk fii moo tax tey mu yabale fi tey ngir ñu ñëw teewal ko fii waaye daal sant nañ euh, tey sëriñ baa ngi bëgg sëriñ baa ngi ñaaral mboolem mbokk yëpp rek saa boroom nangu liggéey bi waaye nag euh, lépp luñ ci def rek si Sëriñ Tuubaa nangu ko ci siyaar tey yi nga xam ne tey ñëw nañ tey ngir siyaar ko fi te te Sëriñ Tuubaa ne woon képp ku fi siyaar rek digge ca la xam ne moom la ci digge woon waaye Cheikh Ibrahima it nag xam nga ne euh, Sëriñ Fallou bis bi ñu ngi ko duppee waaye ku xam diggante siñ Fallu ak Cheikh Ibra it nga xam ne waa kër Cheikh Ibra Fall dañoo ñëw jël si seen wàll rek ndax bis bi damay wax ne buñ ko waxutoon waa kër Cheikh Ibra Fall sax am nañ droit waaye am nañ ci eh, sañ-sañ boo xam ne war nañoo mën a ñëw teew ndax damay wax ne Cheikh Ibra Fall Eh, sëñ Fallou égal yoonu murit ñoom ñooy yoonu murit kon yàlla na sa borom eh, defal ñu ndimbal ak tawfeex xam naa si sëñ Modou eh, moom kàddu yi daal kàddu yi sant la kàddu yoo xam ne mënut a ñàkk ngir tey kii nga jëmu ji nga xam ne tey moom la ñu àndal muy sëñ Khalifa Fall di doomi sëriñ Amdi Fall mu du Mbenda loolu kawe na nag lool waaye nag sëriñ bi yitte ju mu am ci liggéey bi moo tax tey mu yabal doom waaye yabale si suñ Modou Mbenda mi ñu ànd ak ñoom ñu ngi ñaan sa borom defal ñu ndimbal ak tawfeex wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu